salaamaaleykum waa Guédiawaye info ñu ngi leen di gërëm di leen sant di wax ci match bi man la Mouna Fama Koundoul ñu gën koo xam ko ci ab Ablaye di borom Nice. waa gisee match bi première mi bi. moom instant yi tey moom wax dëgg yàlla am joueurs yi moom ñu ngi ci ñoo gën a nekk ñee ci rythme ci gën a match bi daal ci gën a nekk ci match bi mais instant yi daal moom. luy kii bi daal mooy gaa yi dañoo mel daal dañoo nekk dañoo deful seen xel ci match bi maanaam dañoo concentré wut daal buñ concentré won dal yakar na ne instant yi dana nek ci 1 0 wala 2 0 ci premier mi temps bi wa wa wa wa c'est vrai lol la lol dal moom mo dess wa si penalty bu Sadio Raté tim bo xolé tim dafa melni ne lim doon dóor euh, dafa xawa stressé wu dal nekut ci xelam en plus tim dafa melni limi def bugu ko parce que instant yi tim gaay yep ci mom lañ dundé yakar dal parce que mom moy yakar na mom moy tëdd liste jour kii équipe bi bu doon suñu sago dal tay penalty bi daal ñi ngi penalty bi est kon tay koy am 1-0 wala am 2-0 dal ci première mi-temps bi. waaw man la Abou Gaye dëkk quartier Cheikh supporter équipe nationale. bon première mi-temps bi quand même euh, il faut ñu reconnaître que équipe bi joué c'est vrai que ne dugaluñu bi parce que am nañu penalty raté ko mais équipe bi quand même parce que on joue avec une équipe bo xamante dañu dañu taxaw sen camp quoi baña guen té équipe nationale aussi tamit man remarque bima def ils sont un peu crispés quand même xawnañu yakamti ya y a la pression mais man euh, dans mon intime conviction gëm na né affaire bi ça va changer en deuxième mi-temps quoi il faut que les sénégalais soient patients quand même xam waaw non Sadio mooy li ma la wax rek les jours sont un peu crispés quand même parce que booy xool 5 premières minutes yi euh, def nañu ay perte de balle yoo xamante ay joueurs sénégalais ñooy récupérer ballon bi ba pare daanu loolu tension mooy def loolu mais euh, bu fekkonte ne ni tey ji Sénégal teel na dugal dina libérer joueurs yi mais nañu patient rek incha deuxième mi-temps bi bu Sénégal teelee dugal match bi dina changer dinañ gis beneen beneen beneen match waaw. bokk internet yi comme ni leen ko faral di defee rek yéen ngi seen troisième numéro émission sunu CAN euh, tey nag euh, match bi mi ngi nii doog a terminé Sénégal moo gagné Kenya 3 bi à 0 euh, ñu daal di nekk ak rek suñu suñu suñu technicien le coach Birame Koundoul ñu bàyyi ko mu nuyoo ñu doog a waxtaan si match bi def débriefing bi coach suñu bàyyi la nga nuyoo présenté bon salaamaaleykum maa ngi nuyuwaat mbokk internet yëpp yi nga xamante ne bii ñu ngi fidèle ci Guédiawaye info bi mooy suñu troisième émission bi ñuy def mi avec troisième match au Sénégal euh, Alhamdulillah, bon on a joué contre le Kenya et on a gagné 3 buts à 0. Ah, bon avant tout bon on a eu la victoire bi nga xamante bi, bii lañ doon seet objectif bi Euh, so xawoon na metti depuis le début surtout en première mi-temps en première mi-temps on a démarré mal le match parce que nous, avons une équipe attentiste quoi je sais pas c'est dû au changement yi nga coach bi parce que y a aujourd'hui une variation euh, on a vu euh, Salé 6 en défense qui est un nouveau même le gardien c'est un nouveau euh, Gassama même chose c'est un nouveau au milieu aussi on a vu un autre classement entre Idrissa Gana Papa Pape Alun Ndiaye et Alfred Ndiaye et Henri Saivet autant pour moi en attaque, on a Mbaïna, Sadio Mane et Ismaïla Assar. En attaque, mom, vraiment, ils ont l'habitude de jouer ensemble. Quoi. So, xolé, mom, euh, attaquant probable, ñi faral di tek chaque match. Mais sur le plan est-ce qu'il y a règles Ah, bien sûr, bien sûr. Parce que man, suis d'accord, par exemple, ñi matchs match qualificatif. au Sénégal nous ñëw tey euh, di nekk équipe bi nga xamante bi euh, dañu piéger tactiquement so en premier mi-temps bon euh, équipe Kenya bi euh, vraiment ils ont joué tactiquement so xolé ils ont mis une ligne de 4, euh, une ligne de un jour devant la défense après trois lignes après un attaquant ils ont mis du 4 2 3 1 ils ont laissé un seul attaquant en pointe bon qui nous a posé beaucoup de problèmes avec sa gabarit et sa taille loolu sonal équipe du Sénégal bi so presque amuñu benn sortie de balle boo xamante ni bii def nañ ko proprement dañoo mujj obligé di jouer zelon di jouer zelon te ñoom loolu lañ doon cherché maanaam zelon bi ñoom arrangé na leen parce que am nañ ay gabar yu mag quoi mais peut-être euh, malheureusement à la fin de la première mi-temps on a eu euh, benn penalty euh, malheureusement Sadio Mané mu raté ko c'est les aléas du football loolu football ñoo ànd peut-être dans les vestiaires coach bi woowaat na leen ñaaxaat na leen bon def na ay rectificatif soo xoolee ni ñu match bi rek après da ngay visage da ngay gis ambition pour ñëw tel liquider match Dieu merci après Ismaïla Sarr a bon un score sur un joli but après on a continué à pousser encore bloc haut bloc haut bloc haut on a marqué un deuxième but et finalement aussi on a marqué un troisième but on félicite aussi Sadio Mané de passage qui a mis un bon doublé boo xamante ni bi dañ ko soxla moi quoi moom moo gënoon soxla en tant que joueur vu le muy football championnat bi muy joué ak niveau bi mu toll euh, du du accepter joué CAN ba mu te but wala jouer Kan, ñu ne équipe boobu dafa toog ay premier tour et puis kan moo ko éliminé histoire Kenya Kenya soo xoolee histoire su ma le score bu gën ndaw bu ko Sénégal dóor 3-0 Et tey moom lañ ko aussi 3-0 cela veut dire que ni foofu y a pas photo quoi heureusement Dieu merci si euh, ñu fi génne ci un match nul wala une défaite ce sera la catastrophe quoi mais je dis que euh, parfois c'est entre euh, Pape Aliou et et Idrissa Gana il faut que le langage bi jàllaat parce que si ne Pape Aliou Ndiaye moom là, souvent peut-être il beaucoup dafa balles. bal il dafa beaucoup ballon trop parfois il ñëw ba koy fekk ci défense bi pour di ko dàq moom Il y peut-être un changement de jeu Il y day am changement d'angle par exemple le triangle bi base bi mën que nekk ci comme comme base bi mën que nekk ci kaw loolu tamit à l'entraînement koy essayer mais tay jour biñu gëna noppal ci lu baré bari mom moy Henri Saivet parce que il a beaucoup bougé en plus il a opéré un de temps en temps ci bal arrêté yi tamit dimbal nañu ci lu baré baré bari contrairement aux deux premiers matchs nga xamante bi on a beaucoup peiné sur ce point mais tay dal bon vraiment je dis bravo aux Lions surtout en deuxième mi-temps mais en premier mi-temps vraiment on n'a pas reconnu l'équipe du Sénégal. si si mën na nekk parce que soo xoolee lors de la coupe du monde Mbaye presque c' était le je dis que ni c' était le meilleur homme du Sénégal mais après bi mu dikkee ñu joué premier match mu raté sept occasions soo compté sept occasions la raté ci premier match bi euh, nit la nag xëy na peut-être mentalement day xaw a wàññeeku tuuti mais je dis que ni moom niveau war na gaaw rapidement mu tourner page bi xool ci kanam comme Sadio Mané l'a fait tout à l'heure il a raté un penalty deuxième penalty hop il prend le ballon et il met dans les filets pour Mandal c'est un élément qu'on on a besoin de lui encore une fois même s'il rate des occasions il xoolee moom attaquant bi nga jeu techniquement s'il garde la balle du perd et puis sur ses déplacements donc mashallah, quoi vraiment bon. alors au niveau des changements est-ce que d'accord bon parfois je dis comme je l'ai dit la fois dernière. Aliou il est trop attentif sur ces changements constat la boo xamante bi n'y plus dañ ko gis quoi soo xoolee en premier mi-temps lu ñu jàng yi ñun ñëpp à gauche droite au Kenya dañ fa faible Kenya fois faible seen droite raison pour laquelle l'UCC n'y a fois le dikk foofu ba am fa benn penalty pour man loolu bu ñu entamé deuxième mi-temps bi rek dañu war a pro profiter profité ci occasion yu mel mais je ne je sais pas dafay jouer avec prudence moo tax du nangu teel a laal yenn pion yi quoi mais man je vois que ni man maa ngi wax en deuxième mi-temps buñ ñu rek dina changer dispositif même bu changement dina changer dispositif pour point faible adversaire bi nga koy utiliser quoi et puis changement yi tamit bo xolé comme poste pour poste Mbaye Niang Moussa Konaté dugg bon man dal mënoon naa gis benen joueur bu dugg à la place de Mbaye que Moussa Konaté je sais pas

dañu waroon changer garder ballon bi ñoom défense Kenya comme défense ñëpp la il suffit ñuy jouer gisuñu attaquant bu ñuy marquer da leen di perturber défense les défenseurs d'aujourd'hui dañu tam di jël attaquant bu ñu gisul kuñ marquer rek dañuy dof bu ñu dugaloon tey benn milieu offensif ñi garder bal bi tantôt à gauche tantôt à droite ñu bayyi Sadio di jouer sen kanam ñom ñëpp boba dina gëna perturber défense Kenya bi parce que ñom sen gabarit la ñor ak ils mettaient des tacles ils ont mis beaucoup de fautes so compter surtout en première mi-temps ils ont mis trop de fautes côté boobu man man changement boobu man gisuma ko woon quoi honnêtement pour dire nak bon quant Crépin diata à la place d'Idrissa Idrissa c'est un changement que xamanteni ne bi ñepp ngi ko doon gis parce que Pape Alioune il était dans le match vraiment sur les sorties de balles, impact zéro faute je dis zéro faute à chaque fois si Kouyaté a le ballon Gassama at ci kaw Saliou 6 at ci kaw mom moy ñëw dans la défense ñu nek trois défenseurs diko y une sorte de 3 5 2 si perte balle bi tamit soo xoolee tout le temps mi ngi nekk devant la défense contrairement au match passé contre Algérie bi nga xamante bi le but qu'on a pris c'était un but axial te loolu du yoon dans tout ça su amee dañ naan uwee le numéro 6 axial bi taxaw foofu tey moom changement boobu moom vraiment man changement bu ma aimé la Idrissa Gana Gueye cède la place à Crépin Diatta soo xoolee après li des ci temps bi dafa gën a le jeu bi entre Crépin Diata Pape Alioune Ndiaye et Henri Sévé dox na euh, je profite de l'occasion aussi pour féliciter Henri Sévé ce euh, c'est pas facile gars yi jiitu le match 90 minutes deuxième match nga joué bout de match ñu départ la 90 minutes match extraordinaire et puis pêcher ultime physiquement cela veut dire que ni tout le temps mi ngi et heureusement heure bi mu sonné c'est bon. c'est bon voilà ça mom, je dis que c'est une c'est une bonne question et honnêtement hein, Sénégal bu y ni dafa ñëw compétition di bëgg di gagner ay Ouganda ki Tanzanie rek c'est pas la peine d'entamer les compétitions compétition mom pour nga gagner ko il faut battre les grandes équipes compétition pour nga gagner ko il faut oser battre l'Algérie ay Cameroun ak ay Ghana ainsi de suite ainsi de suite su nekké da nga bëgg di gagner équipe yu ndaw rek équipe yu ndaw yi sen sen sen sen li gëna sori 8 huitième la maximum quart de finale su nekké ñooñu rek nga bëgg gagner kon yow bu mëno atteindre ce objectif ne da nga bëgg a dem jëli CAN ou bien finalu CAN il faut que tamit Sénégal nous, ñuy nangu di gagner les grandes équipes parce que le match qu'on a perdu la fois passée contre Algérie du match boo xam dañ ko war perdre. perte quart de finale euh, peut-être du ñu am équipe boo xamante ni euh, de grande calibre la équipe bu moyen ngay am mais équipe bu ndaw sax amatul deuxième tour moom amul équipe bu ndaw honnêtement équipe bu qualifié ba ñëw deuxième tour moom huitième de finale bu ko jàppee équipe bu ndaw jàppal ni équipe bu ndaw yi ñibbi mais amener équipe yi nga xamante ne bii ñoom la ñuy wax ñii ñoom ñooy favori équipe favorite il faut que da nga leen gagner côté bob mom amul amul amul chercher de midi à 14h le coach Yakarna, euh, lire un match bu on a joué trois matchs trois matchs au moins il a utilisé minimum 16 jours normalement warna xam jours yi nga bi ils sont aptes pour jouer les huitièmes de finale quoi. Ouais, c'est bien son rôle comme statistique euh, en première mi-temps euh, on a on a on a reçu 8 fautes par l'adversaire on a commis que deux fautes cela veut dire que l'adversaire adversaire engagé L'engagement, tey engagement la match on a mis on a eu deux corners l'adversaire a eu zéro corner comme carton l'adversaire a eu un carton jaune en premier mi-temps et un carton rouge en deuxième en deuxième mi-temps total des occasions en première mi-temps on a eu sept occasions dont un penalty manqué par Sadio Mané et en deuxième mi-temps et en deuxième mi-temps on a eu six occasions dont trois buts cela veut dire que ni kon euh, réalisme bi ci deuxième mi-temps bi la am quoi kon moy li ma lay expliquer di wax équipe de Sénégal so équipe équipe du Sénégal so xolé à chaque fois rek bala muy jouer rek ça prend du temps day mel ni buy dugg fay sor wala fay respecter adversaire de trop te Sénégal mënul nek favori avant ñi ñëw Coupe d'Afrique ñun ñoo doon euh, première en Afrique ñun mënul ñëw di xaar kenn ñun buñ dikkee luñ indi la ñuy xool jàng ci adversaire bi teg luñ am gagner luñ mom ñu dem suñu yoon quoi bon comme compétition bi nak yalla dimbal nañu bokk nañ ci équipe bi nga xamanteni bi dem nañ deuxième tour euh, bon on remercie beaucoup le bon Dieu préparer les prochaines séances on félicite les joueurs ñu récupérer bu baax baax préparer deuxième tour yi l'entraîneur aussi on lui félicite de passage souhaite ko tamit une bonne continuation bon pour terminer je parle aux supporters nañ japp Sénégal suñu équipe la ñun ñëpp su toogee ñun ñëpp ñoy ñak du 23 ñoy ñak ak staff technique bi du président fédération mooy ñàkk du ministre sport mooy ñàkk ñun euh, Sénégal ñu koy waxee 15 millions habitants yi ñun ñëpp ñun ñooy perte. Euh, huitième de finale bi que tout le monde se remobilise ñu ñëw ñun ñëpp derrière l'équipe ñaan yàlla gagné préparer suñu quart de finale incha allah.